ci biir hommage boobu nag di ngeen ma may ma def une mention spéciale une mention spéciale à Ziguinchor xam ngeen yàlla def na bi ñu toogee ci nguur gi ba léegi jotuma dem Casamance dem nuyoo ji seeti samay mbokk parce que boobu ba léegi maa ngi ci agenda république bi maa ngi ci liggéeyu état ànd président basiru Diomaye parce que dañoo fekk réew mi ci état boo xam ne ak situation boo xam ne dinaa ci dellu si bu si mais dinaa am lu ma sàcc tuuti rek wax leen ko ci ngeen xam ni projet bi dafa am ay tournant projet bi dafa am ay tournant bokk na ci tournant yooyu li xew Ziguinchor ci diggante bu gàtt boobu xam ngeen bi ñu demee ba gaa yi lal seeni pexe ñu dem ba xam ni ñii dootuñu dellu gannaaw waaye ñu dem tam ba xam ni doonte militants yi militantes yi jàmbar nañu lool waaye waa ji dem na fagaru profité temps bi mu am diggante deux mille vingt neuf ak deux mille vingt dem jënd lu toll nu kenn xamul ci ngànnaay recruté lu kenn xamul ci ay alkaati ñu xam ni dina jafe ñu taxawaat jàmmaarloog ñoom ba am ci ndam bu ñu gisee loolu ci laa sa kenn ci sama avocat yi muy maître Bamba Cissé ma ne ko maître ma ne ko maître gars yi de jàpp naa ni bii paa dina jafe la defoon ak ñoom 2021 ñu mën koo defaat moo tax il faut ma changer stratégie bi ci naka ma ne ko xam nga nu may def mu ne ma ma ne ko il faut ñu gagner di temps parce que faw rek ñu yegg ci élection bi te bu ñu leen seetaanee ba ñu am li ñu bëgg ñoom te dinañ fas yéene nañ ko def ñoom balaa élection bi di jot boo moytul du ñu egg ci élection bi wala Pastef du am candidat ci élection bi kon lan laay def mu ne ma ma ne ko faw rek ñu fexe ba ñoom. su ñuy def seen procès caaxaan boobu nañu fexe ba suñ koy def nañu juger par contumace ndax tamit suñu xam-xam nu mu gàtt-gàtt jàng nañu droit tuuti mu ne ma président loolu mënul nekk de parce que ici on est en matière criminelle boo ñëwul dinañu yónni alkaat yi ñu ñëw jël si la sa kër te bu boobaa dinañ la toroxal te defe naa jaru ko en matière criminelle la comparution est obligatoire ma ne ko ma ne ko maître li nga wax waxu droit la man waxu politique laa la wax parce que lii ñuy def ni yëpp politique la defe naa maître Ablaye wat moo doon wax ni un procès politique ne sa gagne pas dans les prétoires ma ne ko dinaa ko régler sama bopp noonu waaye duma la wax la ma ciy def parce que il ma protéger la ma dugg ci groupe whatsapp bu avocat yi bind leen benn bataaxal ne maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp li ngeen waroon def yëpp def ngeen ko waaye mbir mi dootul mbirum droit wala mbirum avocat la ca des nag dinaa ko doxal ni ma ko war a doxee bi ma ko waxee débat yi bëri woon na lool amul benn avocat bu ci d'accord woon ñoom ñëpp ne ma lii ànduñu si ma bàyyi bés boobu ba 22 heures ma woo sama chauffeur am di ngom woo kenn ci samay garde muy Petit Lamine Sonko man leen waajal leen 3 heures du matin daam fu may dem trois heures du matin ñu jël oto boo xam ne oto banalisé la dem nañu ba génn ma doog wax ni tegu leen ci yoonu Ziguinchor Casamance saa jëm parce que it jàppoon naa ni résistance bi ñu def Dakar te yéen ñëpp ngeen def ko ma leen di rendre ma leen di rendre ñëpp xam nañu buntu kër Ousmane Sonko te kër góor gi ak taxawaay bi ngeen ci taxaw yéen jeunes yi waaye xamoon naa ni mënatul woon nekk fii te il fallait que ñu gañe du temps ma ne nag bàyyi ma dellu replier wu fi ma xam fi ma miin te xam leen xam seen taxawaay looloo ñëw bon Ziguinchor dama bëgg ngeen rendre hommage aux militants de Ziguinchor. dama bëgg ñu comprendre lenn bu ñu manqué woon étape boobu tey du ñu daje fii ci stade bi di wax tey du ñu ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey du ñu ne premier ministre Ousmane Sonko cette jeunesse de la Casamance les femmes du bois sacré nga xam ne dékku nañu grenade yi du nañ ñu métti cette résistance héroïque nous a permis de gagner un mois te un mois boobu c'était un mois extrêmement important pour ñu mën a yegg si fii ñu jëm la ca tegu xam ngeen ko ñibbisi bi la caravane de la liberté Vélingara Diaoubé ba nañ may jàppee fañ may jàppee booru Koungheul waaye boobu jàppoon naa ni la parti était presque gagnée kon tey li may wax nii jukki bu ndaw rek la parce que suñuy mémoire dina ñëw ndax lu bëri xew na te nit ñi xamuñu ko li xew bëri na lool wante lépp lu ñu def ci jamono jooju ba ci grève de la faim bi ngeen doon dégg du woon dañoo bëgg a xaru de ndax ay jullit lañu waaye xam ni dañoo waroon gagner du temps saa suñu defee seen pexe def pression ci directrice hôpital bi def pression ci médecin yi pour ñu génne ma dem ba jël sama dossier ak dossier Fadilou Keita mii ak dossier Diomaye Faye def jonction des procédures saa suñ ko defee rek ma duggaat ci grève de la faim bi ba nga xam ne duñu mën a ñëw jël siñu kon maa ngi rendre hommage un hommage extrêmement profond, sincère et chaleureux aux militants que vous êtes. Vous êtes formidables. Sénégal mënu leen fay. di nuyu nag suñuy alliés ndax it jàpp naa ni Pastef def na limu mu war a def yëpp waaye dafa am ndollent dafa am ñu ci ñëw dolleeku si te ñenn ci ñoom ñi ngi fii toog ay dëmbooj wax seen tur waaye ñoom ñépp ñi ngi fii toog ñoom Malick Gakou ngi fi ñoom premier ministre Mimi Touré ngi fi ñoom Boubacar Camara ngi fi bëri lañ fi daal su ma limee rek mën naa mu am ñu ma fàtte ma leen di rendre un hommage mérité par rapport ak seen taxawaay mu des nag capacité boobu nga xam ne moom la ñu wone ci jamono yooyu ndax dañuy ñëw ba yàlla dénkuñu léegi nga xam ne tey lu ñu mënoon démb war nañoo mën a téeméer lu ñu mënoon benn démb tey war nañoo mën a téeméer est-ce que dañuy ñëw ba tey ñun militant Pastef ñuy génne jikko buuteeg jikko gi ñu wane woon muy le don de soi pour la patrie loolu rek mooy question bi ndax nguur dafa doy waar boo xasee ba yegg ci nguur tentation yi day bëri appétit yi day bëri bu ko defee waxu falu ak waxu nomination commencé nag di jël importance boo xam ne buñ ko moytul dina dem ba suul li nga xam ne moo taxoon ñuy xeex mooy soppi réew mi ba suñuy doom ak